yóbbu ci turu borom bi euh, di wax bismillahi rahmaani rahim di sàkku ndigal ci xalif général des Layènes suñu maam Dudu Maxtaar di euh, jiital ci nuyoo bi magistrat wu numéro un de la commune de Yoff à savoir le maire de Yoff Seydina Issa Laye Samb di gërëm coutume bi di euh, gërëm frais yi di wax ne tey buñ ñu gisee fii tey ñu toog ñun la jeunesse consciente benn cause rek moo ñu fi indi muy une cause très noble bi nga xamante ne nii mooy lan benn ci doomi yoof bokkoon ci ay détenus yu bëree bëree bari ñu gis ne détenus yi nga xamante ne nii ñoo nekkoon ay détenus politiques yëpp dellu nañ seen ay kër nekk seen ay mbokk di dund ak seeni mbokk jàmm ak salaam ñun ñu gis ne suñu doom suñu mag suñu rakk suñu lépp di un docteur en pharmacie muy Mamadou euh ndoy ñu gën ko xam ci Meuse nek une personne très engagée nek une personne bu nga xamantene ni c'est un digne fils de Yoff nek dans les barreaux ba tey ni. nii ñu né milieu carcéral du dëkkuwaayu Mamadou Lay ndoy parce que jëful lutax mu war fa dess ay nit jëf nañ lu pire la mu jëf muy engagement kese gëm dara di ci dox nekk doomu réew mi comme ñëpp loolu moo ko jural tey li nga xamante ne nii moo ko dal ñu gis ne am na lu fi jaar ba njiitu réew mi joxe ndigal ñu wàññi ñépp ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci biir kaso yooyu noonu nekkoon ay détenu politique ñu dem seen kër ñu gis ne ñun suñu rakk jooju noonu muy Mamadou lay ñu koy gën a xam ci Meuse bokkul ci ñooñu ñuy ñaan tey jii nii le gardien des so mi nga xamante ne nii moo ilif képp ku nekk ci orientation judiciaire mu dimbali ñu si suñu doom jooju noonu suñu rakk jooju di Mamadou mu dellu si si ñun la ñu koy ñaan lu mu man la lañu koy ñaan lu mu am la lañu koy ñaan lu nekk ci loxoom la mooy Mamadou Laye moomu kat nañu ko bàyyil mu ñëw ànd ak ay ñoñam ànd ak fameem ànd ak ay mbokkam dundandoo koor gi nga xamante ne nii moom lañ nekk en tant que julit mu dellu si si ñun ndax liggéeyam a ngi koy xaar ay mbokkam ñu ngi koy xaar ay xaritam ñu ngi koy xaar ñun la ñu oote tey du orientation politique dañu oote pour une cause communautaire avec des buts déterminé but bu yëpp xam nga lan la mooy Mamadou Laye na dellusi si si ñun ànd ak ay mbokkam ànd ak ay xaritam te loolu ña ca man dara tey mooy ka ca jiitu mooy le gardien des sceaux ñu ngi koy ñaan di ko wax ne na jox ordre ngir yàlla ay substitut muy procureur yi nga xamante ne nii ñoo yor dossier ya ndax ñu ngi gis ne Mamadou Laye ñu ngi ko jàpp depuis le 30 juillet ba léegi mu am mandat dépôt le 2 août ba jon yàlla tey saa yu taxawee ci cabinet bi nga xamante ne nii mooy le sixième cabinet bu parke yor dossier boobu noonu muy amaat ay renvoi ak yu ni mel ñu ngi ñaan ñi nga xamante ne nii ñooy autorité politique yoo fois la ñu def lu signifiant la ba ba léegi ñu ngi ciy nekk waaye dañu wax ne bu ñu dollee ñu jël képp kenn koo xamante ne nii loxoom yegg na fu suñu loxo yeggul wala kàddoom yegg fu suñu kàddu yeggul ñu ngi koy ñaan lillaay war a soli mu wax ak autorité ya nga xamante ne nii bu ñu waxee ci dossier Mamadou Laye bii nii Mamadou Laye ñibbi si tey ndogu noog ñun loolu la ñuy ñaan ñu ngi gërëm média yi nga xamante ne nii ñoo fi teew muy jotaay justice SN ndax euh, képp koo xamante ne nii day wax rek bëgg na ku ko jàllaleel li muy wax di gërëm Arusu TV bi nga xamante ne nii chaîne locale la ci Yoff ñu ñëw fi gërëm Dakar Presse gërëm Dakar 92 gërëm wal fajr yi nga xamantene ni ñu ngi yexsi ak wa Ndam Média damay bayyi ki nga xamantene ni moy suñu rak muy papa bokk ak Mamadou lay ndey ak bayyi mom mu jotal message am te message bi yépp waaw salaamaaleykum maa may nuyu ñëpp ñi fi tok xam nga di def tamit comme Lamine nim ko rek di jël nuyo bi diko jitalé ci monsieur le maire waaw tay nak bu ñu ñu gisee ñu ñëw ñu toog fii c'est parce que daa suñu frère du man rek sama frère man kese suñu frère ñun ñëpp parce que moo waral tey ñu ñëw fii toog Mamadou Matar Laye dooy ñu gën ko xam si Meuz ñu jàpp ko comme détenu politique depuis le 30 juillet mandat dépôt ko le 2 août depuis lool mu ngi prison Rebeuss chambre 12 sixième cabinet tey nag lii tax ñu toog fi lenn kese la média juste pour médiatiser lenn rek muy lan taxaw ñu fi pour que juste dañuy politique wala la non non ñun lenn moo ñu tax a jóg nañu libéré suñu mag nañu libéré suñu xarit parce que moom laay ku ko xam xam ne c'est un jeune déterminé quoi ambitieux en plus bëgg a dëkkam moo waral mu def yenn yi bëgg a dëkkam moo waral mu jël ay ambition am teg ko ne damay reyante ngir sama dëkk tey tamit ñu jàpp ko comme si manifestant jàppee comme si détenu politique nak li ñuy sàkku lenn la nañu fexé ñu dimbalu ñu ci loolu nonu ñu libéré ko nu mu gën a parce que def na fa 7 mois bientôt 8 mois le 2 lay def 8 mois rëbës xam nga fi nak nag képp ku xam xam ne condition carcérale yombul juste bu la woyé day dalal sa xel xamal la que ñoo ñu ngi ci jamm naaj ana mère bi mu ngi ci jamm ana paa bi ñu ngi ci jamm waaw mais mom day am lu ko metti fi mu dëkk fi mu nekk ñun tamit dañ koy am tay mérito wul fofu du place am tay nak dañuy wax. man nag dama fi waxal comme si sama papa ak sama yaay parce que Mamadou bi ñu koy jàpp fekk na paa bi mu ngi fi ñu beegul ñu jàpp que le dimanche 30 dimanche bi si topp paa bi war a ñibbiwaat extérieur mu doon lu ko metti trop depuis loolu mu ngi fa di am tamit lu ko metti mais mënu si dara maire bi tamit mu ngi fi te ku xam maire yi xam ne tey seen doom si nekkee seen de condition rek tey li mu leen di jural da ngay gis ñuy feebar di jóg tey nag moom dama koy waxal fii quoi parce que mënu fi ñëw mënul ñëw ñu ngi leen di ñaan yéen ñuy autorité yoof ne yoof ngeen fi nekkal yoof ngeen fi teewal tey seen doom bu nekkee si difficulté war ngeen mën a taxaw jàppale ko ñu xam ne ñii waa yoof leen fi nekkal xam nga du ma cité noonu du ma cité dara mais dañuy ñaan dañuy sàkku si ñoom bu ñu mënee dimbali ba def la tout Mamadou dellu sawaat si ñun continuer waa liggéeyam ak bépp détenu politique bu nekk prison parce que loi bu ñu voté la ba pare bu ñu ko voté promulgué ba pare jéena kon ñëpp a war a génn mais c'est pas normal ñiy génn ñiy des lu kenn loolu du yoon kon tey jii nag dañuy ñaan ñi nga xam ne seen loxo àgg na fenn fi te ñun suñu loxo àggu fa ñi xamante ne mën nañ si dara te ñun ñii mënuñu si dara parce que ñun liñ mën yëpp def neen ko lii moo ñu dese woon def neen ko xam nga kon tey bu ñu mënee jàppale si autorités yi nekk Yoff ñu fexe ñoo dimbali ba Mamadou Laye ak képp koo xam ne détenu politique nga nga dimbali ñu parce que Yoff bari woon na ay détenu ñëpp génn nañ loolu dañ siy sant yàlla bu baax kon Mamadou rek moo si des xam nga te ñëpp xam ne ne Mamadou méritoowul loolu beneen doomi jàmbur tey méritoowul loolu kon tey nañu jéem a dimbali rek su côté boobu ñu jàppale ñu fexe ñu génneel ñu Mamadou Laay mu fexe dellu soit su ñun parce que loolu tey bu buñ ko defee defalu defaluñu ko ñun kese dañ ko defal peuple yoo fois parce que dañ ne yoof leen dëkk yoof la ñuy représenté te ku si génn booy taxaw da ngay taxaw wax lii nga bëggal yoof kon tey dañu da ngeen ñu war a mën a jàppale su côté boobu génnee ñu suñu mag suñu mag suñu xarit suñu frère mu dellu soit su ñun quoi loolu rek moo waroon tey ñu def conférence de presse bi en ñu ngi sant ñëpp quoi parce que ku ne gis neen taxawaayam si affaire bi depuis Meuse ñu ngi fii ku ne am na lu mu siy daj koo gis newu si jàmm à chaque fois mu ngi lay laaj ana Meuse ndax mu ngi si jàmm mais da ngay dalal xel yi ne leen rek mu ngi si jàmm mais ku nekk xam ne ne prison yombul prison yombul kon nag lenn rek la leen di ñaanaat ñu bamtuwaat ko encore dimbali leen ñu si côté boobu ngeen jàppale ñu suñu frère mu ñibbi sawaat comme ça mu mën a continuer waat carrière am parce que jeune bu ambitieux la woon en plus kon tey bu ñu ko jëlee yóbbu ko si en plus nekk pharmacien tey bu ñu ko jëlee dugal ko si prison bi rek pendant huit mois mu ne fa kon loolu si carrière am rek dèjà baaree nga ko huit mois xam nga kon nañu jéem a dimbali su côté boobu rek encore une fois mu ñibbi sawaa su ñun ñu jàppale ñu parce que loo bu ñu voté la c'est forcément dañ ko war a bàyyi mu génn mais lu tax mu toog foofu ñun xamuñu ko xamuñu lan moo tax mu toog foofu te tey te mu neewuñu diw wala diw moo ko fa téye xamuñu kon affaire de dossier la rek te dossier na ñoo xam te ne yomb na si ñoom juste coup de si ñoom kon tey si côté boobu nañ ñu gën a jàppalewaat ba Meuss dellu si waat suñu ñu mën a mu mën a continuer carrière am ñu mën a nekkaat suñuy projet quoi ok merci beaucoup.